ngeen ko xamee euh, sëriñ bi bi nga xamee ne liggéey bi àgg na euh, waxoon naa ko fan yii laata jumaa ji di àgg sax la ma wooloon bis daaw war naa ma ñareet ne ma kat dama daa bëggoon yónni ci Cheikh Sidi Mokhtar ndax man baaxoowuma sax di wax dara sama kilifa xalaat waaye nag lii day yitte ju far ju taxaw yoo xam ne dama ko gis muy loo xam ne lu ma itteel la nanga ma ci waxtaan la moom bu ko juboo rek ñu wéyal ko mooy imaam ji xam ne moo war a dem Masaalikul Jinaan bu ma bu ma juumut ñaar laa ma sa fàttali ko ci juróom-ñaar at yi fi Cheikh Sidi Moutar am mooy yoo xam ne sëriñ bi yónni na ma ko ci moom ci xalaat benn bi mooy université bi ci mooy lii kon ñor na ko ne ma kuy wax sëriñ ba Lo موم سيري مصطفى عبد الرحمن لو ميغا خامني واي جوروم ييب خامن نتا خوايام جي الاسلام سيري مصطفى لو نا جوخ فيرني مامم نك سيري دا عبد الرحمن لو ديغيما سيري توبا دو دو صاح ليس مانا ليرال سي ابراجو ndax xóot gum xóot ak doyloo gu ko suñ tuba doyloo mm-hmm. xam ngeen ne daana naafi la alxuraan bi mm-hmm. lim mokkal alxuraan ci biir yoon bi li gën a ñor Sëriñ Tuubaa mooy alxuraan moom la ko Sëriñ Tuubaa dénkoon kon kon moom sori na ci sëriñ bi Sëriñ Moustapha Abdou doomam euh, nit doon ku bari xam-xam bëgg Sëriñ Tuubaa daal moom dama ko dund ak moo xam ko juróom soxna muslim Sëriñ Tuubaa moo ko jur bokk ak Cheikh Mouhamadou Mourtada ndey ak baay sëñ Moustapha Lo itam sëñ Abdou Khadir yàlla def na bi mu doonee xalif général di murit da ko wooloo bëgg def ko naayib ci jumaay Tuubaa ji kon Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa mel ne junj boobu rek làgg na ndax waa kër sëñ Tuubaa lu mu junj rek faaw suñu borom def ko bi liggéey bi àggee nag mu tànn sëriñ Bachir Lo def ko muy imaam moom itam muy nit ku baax moom sëñ Bass ولا تكتم الشهادة نيت كو باخ لاكو دال كو ام خم خم كو رغال يالا كو سام كو خامني لي ني سنتو سي امام داجي ناتي مو داخ ابن عاصر ان نوم كو تكي شرط الامام ذكر مكلف ات بالاركان وحكما يعرفه وخير سي فسق ولعت ولعن في اقتداء في جمعه حر مقيم عدد سارت يبدا جيري sëriñ bi tànn ko Cheikh Mahodou Mourtada tànnoon ko yóbbuwoon ko Amérique ba mission jeex fa muy ñibbi ñibbisiwaat Sénégal sëriñ bi tànn ko jox ko muy imam bi nga xamee ne Cheikh Sidi Mourtada bàyyi ko na fi bañ jàpp ubbitik jumaa ji mu woowaat ma ba ma ñëw mu ne ma la ma xalaatoon ci kanamu sëriñ bi kat laay wéyal mooy tànn ko muy jiite mu nekk imam ratib bi sëriñ Moustapha Cheikh Abdou Khadir sëñ bàkk yi tudd na ko léegi Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko tànnoon ayit yi day continuer na ko daa defee rek ci ndigalu sëriñ bi ba lu toll ci bi ñu bëgg a rek sëriñ bi woowaat ma Cheikh Mouhamadou Mountakha ne ma kat ginnaaw bu ñu tànnee imaam ji ba noppi la ca dolliku mooy imaam mënta ñàkki ay li ñuy wax ay luwaam na ci loolu nag fekk ma fekk mu toog sëñ Bachir Lo toog sëñ Xaadim Lo rakkam toog mu ne ma sëñ Xaadim Lo mii kat moom sëñ Bachir xam nga ni demee xalaat naa ci ba tàyyi sax ndax jege gi ñu jege waaye nag lislaam am juróom suñ ci dara la ci jublu xam naa ko daal moo koy leer la dama jublu ci tànn ko mu nekk naayib bu jëkk wax mu wax mu loolu kon mbirum batin la wax ma illa ja tax moom itam li may seere ji suñu bas rek laay seere ci moom ñoo bokk rek melokaan nit ku baax man sax mutuma ci moom seere ndax sama digg moom waaye nit ku nit ku baax ku ragal yàlla ku jàmbaare ku dëgg koo xam ne eh, lépp lu mu gëm na mu ko na mu ko yëgee rek ni la koy waxee loolu moom ci waajuram la ko jële nit koo xam ne eh, ku am yittale ci xam-xam ak jàngale conférence yi muy def it ñëpp xam nañ ko muy jàmbar nekk nekk ci eh, nekk ci ñi li ñuy wax ñuy def daawa kenn ku ko ci ëpp solo ci Sénégal fi na xawma ko jàmbaar la ba bitim yoon dana fa dem di tuubal ay nit kon daal gëm leen ne sëriñ bi tànn leen imaam yi ko mat eh, kon loolu mooy la ci jiitu la ca desaatit mooy ndax xam nga ne eh, ni ko suñu bàkk yi waxee léegi rek bu ñu wax jàkka mooy mbirum lislaam la kon jilloo ci war a jiitu kon sëriñ bi tànn na ko tànnaat it euh, sëñ imaam euh, sëñ imaam Cheikh Gueye moom ba liggéey bi tàmbalee ba nëgg ni mu ngi koy ànd ñoom moo ci toppat ka ca dolli ko waat mooy sëriñ Issa Gueye di euh, sëtub suñ suñ Afeñang suñ Afeñang xam nga ni mu demee ak Cheikh Mamadou Fadal di sëtub suñ Afi Gueye kon moom itam mooy ko ba ñeenteel li ci des xam naa suñ bokk yu xam waaye ñooñu mooy ñu sëriñ bi tànn ngir ñoom ñu tànn wéy liggéey bi ndax sëñ Issa moom li ci sëriñ bi jubluwaale daa bëgg la sëriñ Touba ñaanoon ci jubaay Touba ji rek wa wax ne wachanlahu dëban maskana taallum wa mawdi al fikri wa tafahumi dafa bëgg ñu fi jàngale majalis loolu sëriñ bi gën a jublu ngir muy jàngale majalis ci jàkk ji ngir ñi nga xam ne xamuñ seen diine ñëw fi di jàng ci wàllu ci wàllu nodd yi itam am na ci ñaari ñum tànn kenn ki wax na ko sëñ bàcc yu démb mooy doomi sëñ Souley xuma tur wala xamut nee fii la nekk euh, sëñ Souley mi daay noddu ci jumaay Tuubaa ji ak ku ñuy wax sëriñ Jili Buso di doomi sëñ euh, Abdou Xarija Buso moom tam bokk de ci noddukat yi ci des nag sëñ bàcc yu dana xam ñoom cee teg ngir ñu wéy ko ndax liggéey bi dafa yaatu te euh, liggéey bu mënta taxaw faaw ñu teg fa ko xam ne ku am gànt nit mën laa wutu ci loolu kon loolu mooy li jiitoon ci wax ji